tiis gu métti Sénégal sépp daal di ko yeewoo ni gën ni démb ab accident bu métti métti daal di am foofilee ca Kaffrine ba tax moom jiital réew Macky daal di décréter deuil national ci ñetti fan fas yéene itam jooyamti dëng-dëng yi am ci biir dem géeg dikk gi méttiwaay bile l'accident foo ko natt weesu na ko ba tax moom jiital réew Macky Sall demoon na foofilee ca Kaffrine ngir wu ña ca loru ba noppi nag di xamle li waral bile accident itam di ko ñaawlu bu baax a baax. bu ñu xool ci suñu histoire mel na noonu suñu gis accident circulation ay oto yu entraîné autant de morts fanweeri nit ak juróom-ñeent ñàkk nañ seen bakkan ci accident bi fanweer ak juróom si saa ñeent ñi bi ñu ñëwee ci l'hôpital la la ñu faatu. jërëjëf monsieur le président def nga lu rafet ndax nag sa askan bu ñu amee métit lu war la nga mastawu leen cause yi waral bi leen accident nag du fi bees yàgg na fi lool sax wante lan moo tax fagaru woo leen laataa bi lee musiba di fi am yan mesure sax nga nar a jël monsieur le président de la république. ñu gis ne nag jot na ñu jël ay matukaay ci. auto yi transporté doomu aadama yi ci condition yi ñu leen di transporter ci condition yi ñuy joxe permis si at yi nga xam ne ñiy dawal aussi war nañ ko am parce que boo yebee juróom-ñaar fukki nit war nga xam ñi nekk sa ginnaaw doomu aadama lañu. leneen lu mat a waxtaanee mauvais comportement je le dis bien mauvais comportement si ñeen ci chauffeur si xolal ma lii rek.

kon yëf bi du amal conseil interministériel yëf bi mooy lu ne kët lu ne jon na koy faj. saay yu ju mel ni amee rek ñu masawu askan wi jëli mesure wante ab diir ñu delloo buum ca mbooy mboy ga boo leen fàttalikoo batalo Joola lu ni mel amoon na fi ginnaaw batalo Joola ñu jëli woon ay mesure mesure yooyu le buñ ko appliqué woon ci tali bi ba ci jonn yàlla tey musiba bile du fi mësta amati jërë ngeen jëf.